Ils n'ont aucune intelligence. Ils n'ont aucune formation républicaine. Comment on peut faire fi de l'autorité de la chose jugée La haute cour de justice, qui est la plus grande instance en matière judiciaire, qui donne un non-lieu total. Et vous parlez de poursuites judiciaires. On se moque de qui De même. J'ai honte pour les gens de la, de la paire. Idrissa Seck du bëyu saraxu président Macky Sall Idrissa Seck fii ak ñuy dugg palais diko installer installé dans 365 jours duñ ko may ñu xosi ko lu gëna tuuti ci wé ñun ndawam ñokoy défendre bu bëggé mom fi mu tok mu tok fa ba jouram jeex en 2019 ñu jëlé ko fa na baye Idrissa mené sa campagne mais bu jémé lu arbitraire ci Idrissa Seck dina xamni Idrissa Seck tay askan wé nek ci